fasl li ab dog la fi kabairi ci bakkaar yu magge kabairul hasina bakari way moy nya wala bakar yu rëy way moy nya badat fay nañu hisrina mbir mu ñu ñaar fukk jël ci nga seeni toxal sahihatul ajwar lañu hadat teggindee nañu le bakari magi buñ ko dé wañi ñaar fukk ci nga xamne ne la ko ñen ñi xam ande te jëme ko ci ñu wër xujbun aaw te moy gis boppam wa kibrun ak rëy xasadun ak kañaan mahariya and ak ngistal muxtasatun mu jagleel lañu bil xalbi ci xol daala mbir mu ñu ñent ya na nga xam ba ne bakkaar yi mag yi war nañoo mat ñaar fukk mu ne am na ci yent yoo xam ne moom ci xol la aju bi njëkk a mooy gis boppam maanaam naw xam-xamam ba jëfam loolu bakkaar bu rëy la ba ca topp mooy rëy rëy jàpp ne am na daraja keneen am na daraja waaye moom moo ko ëppale daraja réew boobu nag moom day loo xam ne yàlla ko jagoo te di lu jafee mucc li fekk jaam bi jàpp na ne tane na kenn ci jaami yàlla yi rek am na kenn kum gën ci li yàlla sàkk rek su boobaa dal nañ am dara ci rëy ñetteel bi mooy kañaan kañaan nag mooy ñàkk yéene xéewal ka ko yàlla defal moo xam day xéewalu àdduna moo xam day xéewalu alaaxira mu ñàkk koo yéene kooko bu ca boolee waxe ko mbaa jëfe ko mu doon bakkaar bu rëy rëy bu fekkee yéenewu ko ci xolam nag waaye bu sañoon sax yéene ko ko te ko doon di génn ci xolam rek waaye bu sañoon sax yéene ko ko te waxewu ko jëfewu ko itam kon kenn du ko ca topp dara ngistal nag mooy jëf joo xam ne jëf yi àllaaxira la jaam bi def ko te yàlla yi kese kese taxut jëpp jëf joo xam ne jëf yi la jaam bi di ko jëf dañuy seet bu fekkee ne yàlla kese tax loolu mooy ak sellal te mooy tax yàlla nangu ko waaye nag bu fekkee lu bokkute yàlla rax na ci rek kon ak ñàkk sell dugg na te loolu mën naa tax yàlla du ko nangu far ko ca bindal bàkkaar sax wal xatmu rey ga xussa jagleleef na ko bi ni ci yaari loxo ya mu ci kem càcc ushkur santal ëllës yu buur bi nga xam ne ka fegal na la alfasaxata saay saay sa alfasaxata jamono faasiq la mu ne am na ñaari bakkaar yu mag a yoo xam ne ci yaari loxo yi la aju xam loxo leen di def te mooy rey bakkan ak sàcc rey bakkan sàcc yooyu yaar lu ci nekk bakkaar bu rëy la te loxoo koy def wax yi batun jëw nan yi batun ak rambaaj ak lu riba ak lekk riba xursat jagleleef na leen bi fa ci gimiñ mis lu xamarin kem sàngara suri ba sos naaneef na ko ka ak li amwaal yatiimi ni ki lekk alali jirim ya wala yamiini ak ngiñ la ay li mu ci namm alxamoosi la dib morelekat ca bakkaar daañ koy firee nag alxamoosi la dib morelekat ci sawara waaye day def bàkkaar lu mu réew mom moom du bokale rek mo na koo jéggale wax ni ñoom xaawun juroom ñatt lañu la aminu jot may fen shahadatu zuri ak seere wa qad zul muhsanati khas jigéen ña ñu fegul nag zaaminatul kabaayiri mooy ak juroom ñetteli bakkaar yu mag al mustahjanati din junlu daa waxoon ne làmmiñ moom daa bari bàkkaar yu mag yu ci aju mu njëkkoon a tudd ca wewee jëw ak rambaaj ak lekk riba ak naan sàngara fii nag mu njëkkee ci wey yi lekk alal yi juróom ma juróom ak lii loo xam ne wér na kon du dëgg mbaa da koy sikki sàkk doŋ di ko xel yaa rek daal ñeme yàlla waat ko ci yàlla gémmi nal noonu dafa diis lool moo tax moom it bakkaaru mag la te gémmiñ moo koy def mooy juróom benn seere neen mooy juróom ñaareel bi mooy seere loo xam ne wóoru ko donte sax bañ ko seetee far na dëppoog la amit waaye ba koy seere moom wóoru ko ne noonu la rawante na mu tey ko seere lu bokkut ak la am kooku bakkaaru mag la bu aju ci ci jigéen joo xam ne xamaluñ ko yenn tànk caaxaan ñu ko war a tuumaale mu di ko tuumaal ci mbirum njaaloo ak lu ko nuru kooku nag mooy juróom-ñetteel bi ci bàkkaar yi mag yi nga xamee ne aju ci zinal njaaloo lépp